kële bi lu sax ndey mu Sadio Mané rek li ko rey mooy taat nee na ci réew mi moom réew mi mën a fee ñaan ñaan gu nangu taati neen ñi réew léegi Sénégal moom tubay léegi daana ko soxlaatuñ ko ay taati neen ay awra kese na la ngam ay ween góor génn waaw jigéen génn ween noo fi ñaane ñaan gu nangu man tam da ngeen daa dof dafa yàlla na ne télé de mooy bu la bëgg loolu normal wallaay wax loolu normal waaye télé yaa ngi bon yi waaw ah ngay gis sax non non vraiment jëf waaye c'est que fii dañuy dañ dañuy bëggoo diine ji dañ naan Sénégal réewu musulman la mais appliqué wuñ mais caati leen gi daf fee bari torop cagatu gi bari na fi góor ñi génne seen rek ci ñoom jigéen ñi wasaali kan naka noonu cam kon xam nga ne fii Cameroun ñoom xam nga lan la ay catholique foofu nooy gisee benn moo tax bu ñu defee loolu du garaaw nooy gisee jeeg bu taxaw waaw génnay weenam. waaw ween yaa nga fere fees dell ak soow. wallaay fere normal. taxaw ci stade bi na ne ñaan yàlla na nu yàlla may ndam. Ah, te ween yaa ah, yaa ngi ca kaw na sadd ween meew may sànni mu naan yàlla na nu yàlla may ndam. maa ngi koy ñaan ci sama barkeb sëriñ. Eh, na ma yàlla may ndam. doomi xaram ji nu mu lay may ndam ak lii waaw. ah, ah? daf yaara ko yaram neen la bëgg a neen maanaam kay duñ la xoos dañuy dugg dañuy ñëpp wallaay duñ dañuy dugg sax seen macha allah nag école macha allah coupe d'Afrique bi nit ñi dem di dëgmal dara nga jàpp doomi raam yooyu yëpp lañu waroon tëj kaso ba mas yi jeex gone googu moom te karante wu ñaaw loon karante ci ci mbir de prono a bon rek man damaa xamul sax mu eh, internet yaa na ci ah. ko def gaañu nañ Euh, léegi dafa am benn relève bu bees. relève bu bees mais ancien pronom maane. relève bi nag aay nag. bi yii. ñii noonu ñoom man nag ñi man. pronom maane njëkk yi dañ leen mm-hmm. fóonante rek. Mm-hmm. Mm-hmm. nga dem si dañuy si kaw. waaw tey mu ree da ci naan pàcc. ba ba waaw da ngay toog ku toog ci lu rek kooku nga xam ne xam nga fi doomeeraam yi man ndaw si dañ jëlee élan di naan nii góor gi affaire bi def nii waaw man dina ko dam ko dam mais bu ma ne bàggoo sànni ci teen dana paccax waay sax maanaam ay waay ba pare boole koog nii nag dëgg nii nag doomeeraam dañuy rëy léegi di rëy bu neex la ñuy rëy ci banda salon lañ

trop daa bari ñu tilim daa war a bari ñu oh. sangu set te sangu set ba bismillah waaw waaw yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir waaw yaa ni allo douze yaa ngi ànd rek waaw kii imbécile booy woote ba waaw mais kii fan say waaye Omar Daaf yow. waaye ak waaye xam waaye yow itam. parce que ba jàng topp yow Omar Daaf Omar Daaf. yow fi mu nekk di jox mat mu ñuy dimbale nga fay football de fi mu ne ci leneen la wax fi mu ne ci leneen la ñuy wax de ay ñuy soof nañ waaye yow itam. sa bokkul ma leen waaye mais sa waay gis nga nice ni ma la ko wax noonu lay demee jàpp leen dina sanga janaw bañ jeex tàkk loolu fi man mais loolu day jafe waay boo xamante nii mooy ki def tatouage du tatouage mooy kii nu mu tuddati waaye tikoo tikoo tatu tikoo tatu tikoo Tyco tatouage sax mooy sama. dafa nit koo xamante ne ni moom ci boppam. bu lay tatouage da futti ba nga set. nga ni benn femme woo na ma ba mu ñëw dama Tyco tatou moo la gën a aaj tatouage man ko lu waral loolu mu ne ma ubbi sëriñ bi ma xool mais ci suuf ngi fi bind ay affaires yoo xamante ne ma xaw ci biir ay love you wëralu ko. dafay ah, benn benn kër ci boori pooji. Tyco mi moom doomu yaram Tyco li mu def neex na moom liggéey na. danaan jàkk nii la naan jàkk say awra nii. nga ni di rëdd. waaye Tyco du ñu woo ñu koy assist di di ko yow nag doomeeraam yi naa nga assisté de te dina ko gis am na star yu ma ngi nekk ci réew mi boo leen futee nga ni man gis naa star yoo xamante ay waykat lañ doo gis seen tatouage seen kanam <laughs> ay biñ futee nga xam ne lépp dëgg la min nañ am na waaye artiste bi gën a ngand Sénégal fii bu ma la waxoon turam nga dara sa noppi dara sa gémmiñ nga ni xottu taat bi fii ay love you bii mu defee benn benn benn kër ak benn fles yaa waay sàmm côté naq bi nii mu def ci xaw ma ay ay kes xama la dabalaa bind ci ay kes xaw ma daal. waaw léegi foog ngay léem léeg-léeg bon na. mais Tyco Tato it war ko war ñun su ndayam li muy def. nii c'est pas def nii rafet na def na ko a moo jur di di foto ni di ko yëddu kooku day. allo salaamaaleykum allo asalaam. salaamaaleykum. maaleykum moom duut góor. Ah, góor la xanaa. Oh. dama xam ni kat góor moom góor bu normal góor bu normal kat waxal te bàyyi xadam di ko fi nag yow itam eh, yow ku yàlla dugg na nga nag yow nga baal ñu baal ñu Oustaz demal waaw anta nag yàlla demal Oustaz dama ni waaw góor bu normal naka ngay tiimee jigéen mu futteeku nga jël ab crayon xaw ma crayon la xaw ma lan waaw di dessiner taatam waaw te doo yëg dara man kay loolu ma jaaxal xam nga ñu may Iran moom itam lëf nga de. dani dara ah, wallaay dañoo ne ci débat bi rek ci yow lañ ne. <laughs> ko dara wallaay. modéré leen seen langage nag. d' accord d' accord jërëjëf wallaay modéré leen seen ah, langage. d' accord d' accord ah, d' accord loolu war nañ cee wax bu baax a baax a baax a mm-hmm. mm-hmm. ma ko xam. dëgg la. soxlu ma xam baayam. Mhm. soxlu ma xam ndeyam. dëgg la dëgg la. waaw te façon yooyu. Mhm. bu ñu dee ci loolu. Mhm. safara directement la ñu jëm. jahannama na ma ñoom kay mu seen kër sama. waaw xam-xam lay wax. xam-xam lay ma wax. dëgg la. ndax réew tas na. dëgg la nit ñi nañu delloo ci seen xel. laa nga dëgg yàlla. lii lu fi jar. dara wallaahi dara. góor kay xanaa war nga mën a dem def mécanicien. dëgg la. mbaa nga def euh, ministre. dëgg la Iran. mbaa nga def euh, léeg-léeg métier yi bëri na. dëgg la waaye amoo dara la war a def lu dul. jërëjëf Iran. tiim ay jigéen. dëgg la futti leen ba nu set. dëgg la naan da ngay dessiné. dëgg la képp xamul. dëgg ñaaw na ñaaw na non jigéen ñi tamit a ñàkk fulla gën cee ñàkk bopp nga ne. waaye doon doonee raam rek dooni doonee raam rek dooni xaj rek dooni ah, xam nga man li may waalaatee boo ko seetloo. waaw ñu bëri dañ may ŋàññi léeg-léeg. ah ku la ŋàññi da ah wallaay waaye moo la Iran ñun ñoo la fi nekkal ñoo nekk sa wet. waaw yow daal loo wax ñu ko ñun ko. parce que da comprendre ne Sénégal. fi mu toll foog ngay jaar ci digg bi. wallaay wax nga dëgg foo ko jaar ci toj joxe la ngay jaar ci bu génn na. wallaay wax nga na. wallaay wallaay wallaay Iran. jërë ngeen jëf. wallaay te nag nice na dëgg. Sénégal léegi pour nga jaam fi yàlla problème xam nga lan foo bëgg a lal sajaada julli fa mbaa nga ñaan fa am na ñu fa laalante ba dem espace moo amatul wallaay boo jaamoo yàlla amatul sànq la démb laa taxaw këram mbay faal mhm. lal sama basan ci boori garab googu ci biti na mhm. nii taxawal booy na ma per nga baal ma de léegi la fi gaayaan kii Aïda Diallo ak booy Balla Ndiaye doon laalante man a seetal bi fan laay julee fan laay am na ci doobeeraam yoo xamante ni ne ñoom seen bopp maanaam dañuy jël nit eenal ko am na ñuy xeexe ci internet bi nag oh. xeex métti gis naa ko ci oh. jël jigéen bi wéete moom ci nekk mu yéene la boppam nga laal ba sa xol sedd ndekete boobu yaa ngi koy filmé oh. benn jour nga woo ko pour laal ko mu bañ nga pible ay photos loolu tamit nekk na loo lu jar a wax mooy phénomène bu a grave même temps yi lu jar wax ngi noonu waaye jigéen ñi ñoo war a téye seen bopp waaw mais naes yow jarul joxe bañoo daal la mooy mooy àll fu wax a wax a wax ndeysaan bëggal la nga am noo demee moom ndeysaan bu la jox boppam di ko tey sax mais yow da nga am war a am yërmande waaye tourné jël ay photam publier ko def ko taat ne di ko publier di ko toroxal te kooku ëllëg mooy doon maire mooy doon jigéen moo war a jur nit ku baax toujours ay doom di xool ci loolu di mer. loolu dafa ñaaw. c'est pas normal. mais si loolu dafa ñaaw. ñaaw na lool. ñaaw na lool naay seeral bu ñu ko defoon sama Mbaasa rak. sa xol day bon foofu ñu ne rak naay sa ngi nii ci image yi. rak baax a ngi nii. ah loolu dafa ñaaw doo ko loolu neexul supporter. bàyyi leen santage santage yi ngeen def jigéen ci internet bi baaxul. waaye Tigo Tatu it. Tigo Tatu moom doomeera la moom mi ñu tax tax ñu wax jarab bii ju mag

dafay rafet ah waaw kay di yoon teg na ko ay mbir teg na ko daan mhm. un mois lañ koy tëj atum yàlla kum firdu saw taat ñu delluwaat ko ci kaso bi moom di ko waaw yoon kon xam nga weer wi wallaahi waaye di ko war nañ ko tëj yow yi mu xool yëpp waaw dëgg taat yi mu xool wane ko dëgg mu xool ci taat ak li mu wane ci taat moom itam vraiment moom nañ ko ab taat wu at waaw taat wu ne at lañ a waaw waaw man bu ma nekkoon tribunal bi lañ la war waaw taat woo bind rek ñu gis ko ci ci internet bi. waaw ñu ñuus la ko def. pourtant day waaye ma tëj la eh, ko filmer kenn du xam ne moom la. kenn da koy xama mën koo defaat sànni ko ci kii ko wax mbaa nooy xamee ni moom la da koy xam. Ah, ah, ah, war ñu leen di yërëm ko moom un mois de prison. de prison tuuti dañoo war def un an de prison deux ans sursis. deux ba tey loolu man na nekk. moo doon yoon. alors waay bu baax. waaw waaw. waaye yow war nga mën a nekk fii yow di di xas tigo tigo tatu. yow la kan. man la Mbathio. ah Mbathio ah yow Mbathio yow tam. mooy yow ñu tase placement ak yow. nga naan ma. waaw. sax amul fi. non waxee ne sama jabar dégg ko ñu dugalaat ma ci internet. bu bëggee koo wéetale ci internet dina ko wut. man dama ko wéetale ci net bi man. Mbathio am na jabar net. nii lay def. kon la ñu invité la mu toog naan am na lu may préparé. toq sa benn saañ ba réer. ma ne ko tee ngaa bañ saañ bi réer saañ bi réeroon na fi de. waaw ah, réeroon na fi de indi la problème moo xam loolu di màggal Tuuba Baasi bi eh, waaw Baasi woote nii man di gëwuma. Souleymane Sow nee na bu hamburger bi ñëwoon mën nañ ko tëj mais comme di rafet na. waaw taaru na woon hamburger bi vraiment macha allah. man Viviane. man Simon. man Doudou Diagne Diecko. Jumba Xaw from the brains. maa ngi seetaan. maa ngi seetaan. maa ngi seetaan. télé sénégal point com. ak télé sénégal point com xibaar dootuma ump te kenn dootuma ko nettali. <laughs> Ah,